ñaar buy dil di am je m'en vais vous faire une révélation te bu ko weddee demain je l'ai tout de suite suñu meeting bi à Thiès man personnellement su ko weddee demain je ferai une conférence de presse génne su may preuve bu fekkee un dealer notoire et caractéristique moo am Sénégal benn nit la muy Ousmane Sonko. fan nga ko teg parce que moom moo wax ak ñetti yoon téléphone avec le président Macky Sall. premier appel téléphonique bi ñu am c'était en 2019 bi président Macky Sall faloo ba pare ñaari kilifa. yu nekk ci réew mi ñu askan bi ñëpp xam ñoo ko passe téléphone mu wax ak moom mu reconnaître les résultats ñaareel bi mooy bu ngeen di fàtte bi muy def conférence de presse am bi sur les fers de Falémé boobu jokkoon ak Macky Sall wax nañu te la mu wax ak moom su ko weddee man danaa def conférence de presse tontu ko troisième bi xam nga mooy kan su ngeen di xool balaa conseil constitutionnel di génnee résultats yi Sonko dafa njëkk a def conférence de presse à 48 heures xaw ma 72 heures wax ne ñoom waa Yewwi Askan bi def nañu erreur erreur bi ñu def mooy li si baaxul parce que gaz la joxe woon dafa woo président Macky Sall ne ko mën naa fexe wax ak askanu senegal ba du ñu taal du ñu toj du ñu yàq te du ñu contester la nga xamante ne moom la conseil constitutionnel di liir pour war la garantie la ma bëgg mooy nga jël dossier ay Sarr bi nga xam ne accusé nañ ma te mu leer ma ne maa ko def muy ñaxataane ki viol nga teg ko si suuf pour wala garantie soo coupé léegi su ma raccroché yow danaa def ab live wax ak askanu Sénégal ne leen carrément ñun waa yeew ñun ñoo juum. ñoo def erreur pour ñu déglu soxna si soxna si man man je ne parle jamais pour parler. s'il y a un menteur et manipulateur ouais, dans mais, ce mais, pays, mais vous êtes sur un être nuisible, un et dangereux pour la société sénégalaise. c'est Ousmane Sonko. C'est une émission, il faut qu'on s'écoute aussi Mamadou Lamine Massaly. Vous comprenez? Parce que ce dernier a accusé d'honnêtes citoyens soxna si ñun dañu am jabar yor ay doom yor ay xarit yor ay soppe man j'assume tout ce que je dis. xam nga dañuy war di kojaate di menacer ay nit man je suis pas un être qu'on menace bu dee wàllum fit laa ki xam-xam ki wëyu je pense que askanu Sénégal xam nañ ma te lu ma capable xam na ko bu baax. alors man nag du ma du ma nit koo xamante dama bokk ci race opposant yoo xam ne dañ ko ragal man je suis dans l'opposition mais une opposition républicaine qui respecte les institutions sénégalaises qui respecte la justice la police la gendarmerie les militaires j'ai parlé euh, paramilitaire mais koo xam ne sos la bëgg a taxaw di conscienter askanu Sénégal si ay kàcc di tuumal d'honnêtes citoyens te lépp loo xamante ne tegu ko ci dëgg man je ne suis je ne fais pas part de cette race là et je n'en ferai pas j'en ai de cette race là su fekkante ne am na kenn kuy dil ak le président Macky Sall si kaw yeewi askan bi si kaw askanu Sénégal bi ak si kaw ndaw ñi mooy le nommé Ousmane Sonko. alors bëggoon nañu euh, li nga fi wax nii yëpp nag comme da nga jàkkaarloo ak sénégalais yi nga tegoon ay preuves malheureusement nee nga kàddu la yoo xam ne teg nga ko teg nga ko ci kawam euh, est-ce que jaawalewu leen adversaire en quelque sorte que aujourd'hui l'adversaire de la coalition Bokk Gis Gis liggéey euh, le président de la République Macky Sall la war a nekk. soxna si booy booy yëkkati ay tuuma man je ne parle pas te aw ma ay preuves man du ma kenn soxna si xam ko waral. dama masali avant bi ngeen xamoon ak masali bi y a une très grande différence dama yor njaboot yor ay doom yàlla wërsëgal ma ak ndimbalam ñetti yoon may dem màkka di ji si at bi yonent bi sallallahu alayhi wa kon lépp lu may yëkkatiti damay am ay preuve duma sosal duma tumal doomu aadama je ne le fais pas tey je vois très honte aujourd'hui de dire que le gouvernement de Macky Sall n'a rien fait dans ce pays ëllëg ma jël autoroute à bi ànd ak samay doom ñu taxaw di ma laaj naan ma papa lii kan moo ko fi def bu boobaa j'aurais mal au fin fond de moi-même moo tax dara jar lu ma yenn yi sama àdduna amul lenn lu may prouver si politique dans ma vie mais lépp fas yéene naa lépp kàddu gu may yëkkati ci askanu Sénégal dëgg laa fas yéene doxal moom laa fas yéene def mais ñaanu ma yàlla askan mbomboor bu ma topp ma la lépp si kàcc fen nag ñëpp ko mën de fen nit ñi topp la ako ñoo ko mën mais est yi nga mais fu ñu toll ñun duñ ko def xam nga lu tax dafa am fu ñuy askanu Sénégal di xaar mooy lan problème yi fi nekk ñu saafara jafe-jafe askan bi ànd koog ñoom liggéey ngir soppi doxalinu assemblée nationale loolu mooy suñu loolu mooy suñu credo loolu lañ yàgg xeex moom lañ yàgg a jóg moom day xëy di tuumalaate day xëy di wax te ñëpp xam nañ ne parrainage dafa metti man ñu ma pare na Thiès ñu ngi fi toog ñu ñu pare na Sénégal ñu ngi fi toog les gens sont mais taxaw ne liste yi Macky Sall la ko parrainé ñii campagne Macky Sall leen jox xaalis bu ñu campagne ça c'est la pure lâcheté ça c'est euh, vraiment ce n'est même pas humain soxna ñun kuñ fi gëmlu nday ak bàyyi gënooñu nday ak bàyyi mais taxaw di tuumal ay gor ngir lan ngir falu defoon nañ ma ko ci législatives yi passé locales yi passé élection locale yi sondage yëpp waa Thiès ñu may seetaan te du ma wax loo xamante ne amut je parle sous le contrôle des services de renseignement et autres Thiès élection yi man maa ko gagné woon loolu c'est connu et reconnu de tous. noo ko gagné. man maa ko gagné woon mais. ci ay sondage nga ko mais si ay sondage parce que. la ma fa def la dafa yomb mu la ma fa la ma fa def la soxna si man du ma waxantu la ma fa defoon la à 48 heures des élections man dama toppoon di campagne suma campagne man maay doon cundum leader politique bu def campagne à Thiès jëluma garde corps jëluma dara j'ai financé toutes les femmes de ma commune amul kenn ku ma lebal dama la yëkkati may la te yàlla tax te mënoon naa lebale comme ce que font certaines personnes lebal su fayee ko jotee bu élection yi jeexee nga yónnee ko UC wala police ak gendarmerie pour ñu fay la xaalis je ne l'ai pas fait j'ai fait des branchements sociaux à Thiès route de Dakar 2 laa ko njëkk commencé plus de 600 familles moo utal leen ndox bu pouvez vérifier salaa gis ngeen ko parce que presse bi génnee na ko récemment mbuurkaat moo si mujj. Mhm. plus de mille familles ma branché leen ndox. loolu c'est des millions dama ko fee fekk suma xaalis parce que damay liggéey ñun liggéey la ñu xam moom la ñu gëm du ñu tàllal nit loxo suñu doon dem tey jàppale président Macky Sall bëccëg lañ koy def naaj bu tàngu jir taxaw ne wiiw Macky sal nit du ñu mën a ñaari salaamaaleykum mais taxaw bëgg a am une majorité à l'Assemblée nationale majorité boo xam ne si quatre si nga ko bëgg def la preuve mais ñoom. ana seen i tête de nañ ko génne xam nga loolu mooy débat bi il a dit qu'il va la coalition Yewwi Askan bi ñi as ñoom seen liste suppléants yi dana fexe ba askanu Sénégal du ko xam pour saboter du ñu am dara. wax loolu mais Ousmane Sonko il a dit lépp li bu wax ak Macky Sall la yëpp donc bu amee kuy dil moom mooy dil si moom mooy dil ak le président Macky Sall si kanamu askanu Sénégal mais du ñun ñooy dil man je suis am naa fula goo xam ne nag su ma encaissé woon grand bi damay taxaw carrément ne ko Macky Sall jërëjëf merci maa lay gërëm di la sant. waaye lekku ma encaissé wu ma taxaw. ñu may tumaal may croiser loolu man je ne le ferai pas. léegi mën ngaa Abdou mu relancer nekk ci meeting tam. waaw mais foog ñu leeral. parce que bu langum politique parce que parce que li nga xamante ne moo xew Sénégal. musu fi am vous me ab leader mu naan sax un soi-disant leader parce que ab leader du génn. waaw léegi léegi bàyyi Fatou Abdou mu mu mu continuer question bi sama question. laamiso mais koo xam ne day ci taxaw bëgg a gëmloo nit ñi ne moom moo set moo propre. sànq. te kuy saay saay ki wëyu. alors moom lay dimbale di ko jàppale. wax dëgg yàlla yàppale Mamadou Lamine Massaly sànq yaa ngi woon ci parrainage bi dinañu xaw a dellu ginnaaw tuuti dem ci la processus électoral parce que li ko waral mooy peut-être euh, waa coalition euh, bokk gis-gis liggéey dégguñu leen. ci bi ñu invalidé ay liste ñu yëkkati ci ay kàddu bu ñuy wax ne dañu bokk ci opposition gis nañu coalition gëm sa bopp taxaw dem sax nag euh, dem conseil constitutionnel kalaame coalition benn bokk yaakaar ne dañ def surplus de parrain teg ci waruñu bokk ñu gis aar Sénégal def ay communiqué gisuñu benn yoon seen coalition ñaawlu loolu nga xam ne am na ci processus bi invalider ay liste ci li nga xam ne mooy parrainage bi ñeneen ñi ñu indi seen ay liste suppléant neenal seen liste euh, titulaire loolu également nan ngeen ko mën a defee te ngeen di réclamer wu de l'opposition Fatou Abdoul xam nga li gën a bon mooy nafeq bu ñu àndoon ñu gëm ko bëggante problème yëpp mënoon na ñàkk donc ci seen biir danga nga jàpp ne dafa may. mais yéenentewuñu jàmm kenn si ñun yéenewul moroomam jàmm doxalin bi wane na ko lépp wax wane na ko ñun ba déposé jotee ñoo njëkk a déposé suñu candidature ñoo njëkk matal ñoo njëkk a baaxle ñoo njëkk pare Thiès it bi ñuy déposé affaire mandataire yeeg ñu siège si bureau je parle sous le contrôle du préfet vous pouvez même vérifier cela man du ma wax loo xamante ne ay waxu fala fala la ñoo njëkk a pare lépp kon ñun ñu koy def dañu xarañ mën naa wax ci wàll boobu et par contre on ne peut pas aussi une opposition républicaine nga ne yow respecté nga justice su Sénégal respecté nga police su Sénégal respecté nga gendarmerie Sénégal respecté nga militaire Sénégal respecté nga les militaires et paramilitaires u Sénégal taxaw justice génnee décision am nga koy ŋàññ man loolu je ne le ferai pas soxna si lii xew ëllëg suñu borom rek ko xam te ñaanuma yàlla génneeti fi kàddu yoo xamante ne ëllëg lu may rëccu lay doon waaw mais ànd naa si xam nga lu tax ñoom bi ñu njëkkee invalidé bi ñu njëkkee validé liste Dakar bi dañu jóg tàcc conseil constitutionnel gis ngeen ko tàcc conseil constitutionnel félicité ko def lépp ñu invalider seen liste ñu taxaw ñooñee nañ conseil constitutionnel mais parfois man je me demande même genre comédie laa leen jàppee ay ñoom il sont même plus forts ko Sanekh et pour être vrai c'est les comédiens euh, comprendre nga et dans un état sérieux wax dëgg yàlla ministre de l'intérieur war na xool ni muy délivrer les partis politiques parce que c'est très important on ne peut pas prendre des gens aussi médiocres des gens qui ne parviennent même pas à confectionner des listes lépp si kaw dil ak dil ëlbatiku taxaw bugg a nit ñi ndax lan kiraay la ñu bëgg a am alors euh, dites-moi euh, Mouhamadou avoir votre réaction est-ce que quelque part Ousmane Sonko n'a pas euh, réussi son coup euh, parce que fu mu ne nii c'est comme s'il a réussi à vous détourner de de de, de l'essentiel euh, bi nga xam ni moom mooy campagne législative bu ñu gisee kàddu yi mu yëkkati nu mu la méttee ak ni nga ko ni nga ko ni nga ko méttitloo ci ci ci ci ci euh, ci plateau bi est-ce que il a pas réussi quelque part son son son coup détourné leen yeneen liste yi euh, ci li nga xam ne moom mooy l'essentiel daal di xàllal boppam yoon wi. mais parce que day fen soxna si je le dis parce qu'il ment. elle sait qu'il ment. mais réaction bi ngeen ci am nii. Sonko vous ne lui avez pas facilité la tâche typique ci yoon il ne peut pas nous détourner parce que yéen ngeen nekk di réagir nous avons un programme bien défini. Mhm. moom xam nañu nous parcouru le Sénégal des profondeurs. et sénégalais yi nga xamante ne seeti nañ leen adhéré nañ ñun la coalition Bokk Gis Gis liggéey qu'incarne le visionnaire le président Pape Diop. il le sait moom xam na il di tuumaal données citoyen xam na ne askanu Sénégal war nañ ko gannaaw rawatina Touba bi muy mubbo moom nee na taalibe sëñ Touba la Ousmane Sonko mës ngeen ko gis mu dugg Touba dem xabru Cheikhul Khadim bu amee génnee leen ko mës ngeen ko gis mu dugg Touba dem xabru sëñ Fallou su amee génnee leen ko mës ngeen ko gis mu dugg Touba dem si xabru Serigne Saliou Mbacké mësul am quelqu'un qui passe à longueur de journée bu saagawul Serigne si ay ndaw mi ñooy saaga Serigne si su saagawul les institutions du Sénégal ay ndawam ñoo koy def kooku est-ce que war na kon ne tey di yee fitna si réew mi le 17 bi passé dafa doon saraxu yelwaan pour ay doomam génn dem jàngi bëgg a génnee doomu jàmbur yi pour ñu taal réew mi vous trouvez cela sérieux madame alors comment vous votre coalition ah boo bokk gis-gis liggéey naka ngeen fas yéene euh, soppi xar kanamu assemblée nationale ndax dégg nañu seen tête de liste nationale keroog ba mu demee ca Sédhiou euh, di fësal ay kàddu yu mel noonu ci soppi xar kanamu assemblée nationale ndax gis ni treizième législature ci ay gis-gisam euh, yées na ci législature bi nga xam ne Sénégal am na ko ci nan ngeen war a sukkandiku ci lan ngeen war a taxaw pour mën a soppi kanamu xar kanamu assemblée nationale boobu. xam nga lu ñu mën a taxaw mooy dañuy ñaan d'abord ñu may ñu une majorité à l'assemblée nationale. buñ ko amee. Mhm. suñu liste boo ko xoolee ñi fa nekk. Mhm. ñi bëgg réew mi nañu. ñu war a taxaw pour liggéeyal senegal lu askan bi yellool ñu delloo leen ko mais lépp si dëgg lañ ko fa yéene def si kàttanu yàlla suñu borom soxna si. la fi soogee bëri na. Mhm. la mbaykat yi yellool ñu delloo leen ko jox leen jiw gu mat. yëkkati ay engrais jox leen. doo leen doo doo leen exécutif de. mbaa ne woo di jaawatale di jaawatale rôle yi. non soxna si bu ñu yàlla mayee une majorité voilà su ñu yàlla mayee une majorité à l' assemblée nationale. Mhm. mais bu boobaa assemblée mooy contrôler ñun am nañ si part de responsabilité parce que askanu Sénégal lañ fa war a nekkal soxna si tey vous prenez bi ñuy jógee Bakel jaar Kidira jëm ay côté Ourossogui soxna si nga jóge fa. di rombaat Bakel di dem ay Tamba jóge fa di dem Kédougou sa yaram day daw ci as l'impression que ces derniers n'habitent pas si réew mi bokkuñu Sénégal ndax tali bu bon ñu manqué éclairage publique te du foofu rek dugal si àll bi si département yi côté côté bundu bi soo fa duggee Médina Médina Wado Fula. Médina Yoro Fula. Médina Yoro Fula dem leen fa madame sa yaram day daw. nga jóge fa dugg biir Kolda àll Kolda yi ni mu mel dem Sédhiou mais les gens ne vivent pas si y a des solution yi loolu yoo xam dañ ko war a régler rapidement mais li koy régler mooy suñu borom jox ñu une majorité à l'Assemblée nationale la ñu war a lijjanti ci étudiants yi bëri na la war a jàppale enseignants yi bëri na. la ñu war a jàppale section nga wax sénégalais yi euh, majorité boobu ngeen bëgg. soo leen ko amee. Mhm. Euh, comment vous allez changer la vie de ñooñu ngeen wax ñëpp ñooñu ngeen gis dans des conditions misérables ci campagne électorale bi. ndax am majorité rek je je pense que doyul. no doyul mais, mais comment contre, concrètement vous comptez vous y prendre. nous allons faire des propositions concrètes. waaw à l'exécutif. Mhm. xam nga boo amee majorité. loo fa teg à l'assemblée les gens vont le voter à 100 pour cent loolu moo ñuy dimbale ñun proposition yu fay def askan bi moom lay amal njëriñ mais pas ñun. parce que askan bee ñu tànn yaakaar ñu wóoluñu ku mel ne man ba ma fa nekkee dëgg laa fay doxal moom laa fay waxal. la may ñaam mooy li ñuy yóotu suñu borom jox ñu ko ñu mun a doxal askan bi gis ko parce que la preuve jël nañ fi des incompétents dénk leen seeni mairie mënuñu sax dimbale askan bi nga xam ne moo leen fal ñii ñu jox leen pouvoir bi certes def nañu yenn joogay mais am na loo xam ne des na mais nañu jox ñun assemblée nationale ñun ñu doxal prouver askan. deux ans mooy des boo quatorzième législature bi toogee deux ans mooy des pour ñu dem présidentielle ndax yaakaar ngeen deux ans yooyu ku fa munti am majorité. que muy opposition que muy pouvoir sotti xarkan soppi xarkanamu euh, assemblée bi nga xam ne moom la ñuy jaay électeurs yi ndax loolu dina mën a ne ci deux ans yi. soxna si ndax dañuy bu ñuy dugg ñuy toog rek ñuy ñuy dugg ci présidentielle tàmbali. ndax mën nañ ci liggéey liggéey boo xam ni euh, war nañ ci mën a dut baaraam. mën na nekk soxna si état d'urgence day am lu ñu mënul soppi si doxalin boobu amut lu ne mun nañ ko fi def. état d'urgence nga wax de mais mais day am parce que boo yoree une majorité mécanique. la fa neex moo fay am loolu la fa neexul du am. mais loolu am soxna si loolu moo am loolu moo am. sànq sànq Evelyne mi ngi mi ngi la koy wax mais mais est-ce que jaawalewu leen le législatif et l'exécutif c'est deux pouvoirs différents c'est vrai que tudd nga ay localités yoo xamante ne ñi fa dëkk euh, am nañu ay députés ils représentent certes leur population à l'Assemblée nationale. mais est-ce que dégg nga leen ñu défendre leen ci gox yooyu mais est-ce que yenn infrastructure yi euh, du volonté politique état moom moo koy def mais yamul rekk ci euh, taxaw Assemblée nationale coow ko pour nga mën ko am. je ne pense pas soxna si man à son temps y des problèmes yi nga xamante ne moo amoon suma dëkku yaay comme à Django je l'avais sifflé à un ami qui député mu sifflé ko mu taxaw kaas ko à l'Assemblée nationale.

moom moo taxaw kaas ko matul 15 jours euh, suñu def. solution am alors solution sànq mi ngi koy wax c'est-à-dire que le président de la République Macky Sall ñaari at euh, ñu dem en 2024 aujourd'hui la question de sa troisième candidature ñëwaat na su la place publique euh, gis nañu le maire de la Médina wax ko démb fii la taxaw wax ko dégg nañu également Thérèse fay wax lu mel noonu sa gis-gis ci troisième candidature du président de la République Macky Sall lan la. soxna si. troisième mandat bi je pense que le criminel Barthélemy Diaz laa déggoon mu koy wax parce que amuñu programme taxaw di wax ay troisième mandat xam nga man lan moo ma suxal jamono jii ñu ne. ñu génn. te nag du ñu wóor kàddu gi rek au lieu de criminel. si man li ma li ma gënal mooy élection législative yi ñu jëm suñu borom may ñu si majorité ñu dem assemblée nationale doxal prouver askanu Sénégal. Mm. ñëw fi. pour ay wax dëgg yàlla troisième mandat moi je suis chef de parti politique comme le président Macky Sall. mais am nga ci kàddu. la ma soxal mooy élection législative yi moom a ñor si laa nekk moom laa nekk di liggéey bis bu ñu si waree wax sama parti. mais ñi ànd ak moom ñi ngi ciy wax. ñi ànd ak moom également ñi ngi ciy wax loolu ñoom la engagé déggoo ma ne moom déggoo ko moom mu wax si si troisième candidature comme moom waxu si. man du ma si wax il est chef de parti je suis chef de parti politique bañ si tollee bis bu waxee askanu Sénégal dinañ ma dégg man ak sama waa parti politique su neexee yàlla suñu borom te loolu yàggatul dara. donc li ci nit ñi di wax yëpp yéen yëngalu leen. déggoo ma de. bien sûr que ñu ngi lay. bougé wu ma un yota bu ma bougé woon danaa si wax la ma si war a wax xam naa ko te révélation yu ma si. war a def jàpp war na ko am wala war na ma de. la ma si war a wax révélation ya ma si am gëm naa ne kenn amu ko te bu ma si waree wax danaa ko wax si kàttanu yàlla suñu borom mais législative lañ toll man looloo ma soxal te fa ma jëm xam naa ko sama waa parti fa ñu jëm xam nañ ko ñama àndale fa ñu jëm xam nañ ko comme yeggaguñu foofu suñ fa yeggee moom su waxee man danaa wax danaa ko tontu te askan Sénégal danañ ma dégg alors Thiès nga nekk candidat euh, demoon nga ci élection locale yi wax nga ko sànq génn troisième position su fekkee ne juumuma euh, tey nga demaat fa taxawul nga taxawal sa parti avant que ngay dem di ànd ak coalition coalition bokk gis-gis euh, ndax am nga yaakaar ci ñi nga jàkkaar lool Benno Bokk Yaakaar Yewwi Askan Wi entre autres coalition Aar Sénégal euh, ki nga xam ne mooy Thierno Alassane Sall ak ñooñu que ne yow euh, mën nañu tey ànd ak ñi nga xamante ne ñoom ñoo nekk Thiès am nga yaakaar ci ñoom pour ces élections législatives que yow la ñuy àndal. waaw am naa am naa si ñoom yaakaar te damay delluwaat la ma la ma rey ba jëluma woon ba gañewu ma mairie bi man dama war di campagne jëluma garde corps jëluma nervi jëluma dara ndax gëm dégg ndigalu waajur suma waajur bu jigéen maa ngi koy ñaanal yàlla suma yaay yàlla na yàlla guddal fanam taxaw ñaan ma ne ma bul wax wax ju ñaaw bul xaste bul tontu te loo xamal nit bul ko génnee te pourtant nag la ma xamoon ci gestion mairie Thiès ak a bëri la ma xamal yenn candidats yi ak a bëri mais dama jàpp ne ku dee di ko jaay